jii xam ne moom la ñeen ñi yaakaar bay boo ñu def ndànk ci yaakaar ji ndax lii nga xam ne moo fi nekk bu Macky Sall soppeekuwul moom ci boppam maanaam dara du fi jógee ndax mbir mi du soppe ab gouvernement bu yeesa waaye jëmmi Macky moom ci boppam moo war soppee ko mbir mi lenn kese moo ko lijjanti mooy jëmmi Macky am nag ab volonté politique boo xam ne bu leer lay doon te nag yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Macky Sall bu fi tegee gouvernement bu yees ministre yi ko tàmmal moo ne képp koo sa tànk bu dee perte nga sa localité dañu lay dàq loolee moo tax fii ak élection législative yi ku fi Macky Sall tabb tamit maanaam doo concentré wu ci liggéey bi la nga gën a concentré wu mooy dem fa nga dëkk jëm faa lijjanti nag li nga xam ne moo jëm ci ay militant yéen i kaay gi di Sud Quotidien nee na Macky Sall jamono ji ma ngi cay jafe-jafe ndax nag wut ab premier ministre ba pare nag wut ñi nga xam ne ñoo koy gunge loolee jafe na Macky Sall yéen i gi di Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Barthélémy Dias tey ji la ñu koy installé ci ville bu Ndakaaru yéen i kaay gi di Walf Fadjri nee na njiitu réew mi di président moom jamono ji gagné li nga xam ne mooy élection législative yi dafa mel ne daf ko a wékk ci ñi nga xam ne maanaam ñooy transhumants yi yéen a kaay gi du l'observateur nee lu jëm ci wàllum transhumants yi mauvaise expérience la te am na loo xam ne Macky Sall waroon na xoole bu xooloon ci Idrissa Seck ak Banda Diop ak Moussa Sy Macky du ñëw rek bëgg a ci ñi nga xam ne ñooy transhumants yi jàpp na ñooy tax mu gagné yéen a kaay gi de ñu xëy fekk fa Bokar Diongo APR Parcelles jubbantiku la ndax lii nga xam ne maanaam moo am ci benn bokk yaakaar ak ci biir APR maanaam mbir mi dafa salfaño yéen kaay gii di Vox Populi xëy ñu xibaar naan ñu Tamba ak Kédougou ñoom seen yoon nekkul ci li nga xam ne mooy loi bi jëm ci wàllum parité ndax lu jëm ci wàllum bureau sipo yi amul benn yoon boo xam ne waa Tamba ak waa Kédougou respecté nañ li nga xam ne maanaam mooy parité yéen kaay gii di Les Échos ginnaaw nag nee njàngale mi jamono ji ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci jëm ci wàllu wér yaram gi maanaam ñoo fas yéene nag dem ci ab grève yéen kaay gii di Vox Populi xëy di ko dëggal sur journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum santé gi ñoom dañoo bëgg nag seen wàllum salaire maanaam ñu daal koy xoolaat ak indemnité yi nga xam ne moom lañ leen di jox ndax ñoom dañoo gis ne mbir mi ak parparloo ak gën gën le moo ci ama ndax dañoo gis ne ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci ministère bi ñu dénk wàllum agriculture ñooñee seeni indemnité jox nañ leen ko benn weer ci ginnaaw rek toll na ci trois cent mille francs ñi nga xam ne ñooy inspecteur du travail ñooñee tamit seen indemnité yi ñu leen jox quatre cent mille francs la lan tax nag ñoom waru ñoo mën a am lu mel noonu ñoom acteurs yi nga xam ne nekk ci wàllum santé gi yéenekaay gi di réew mi ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu Afrique ak Europe tey jii danañu daje ci benn sommet ca Bruxelles mu nekk juróom benn sommet Europe Afrique tey jii la ak suba yéenekaay gi nee na Macky Sall njiitul Union africaine dina ko fekke waaye nag la nga xam ne moom la ñu fay waxtaane la sa ëpp dina jëm ci wàllum investissement yéenekaay gi di réew mi ko di cee nee na Macky Sall jamono ji nag li nga xam ne moom lay waa ca sommet boobee Afrique Europe maanaam coopération boo xam ne gagnant-gagnant lay doon kenn ku nekk gis ci sa bopp yéenekaay gi di Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko sàkkuwaat na ci ñi nga xam na ñoo yor ab dossier ma ngir na ñu daal di koy tegg loxo maanaam contrôle judiciaire bi ñu koy dindi ndax nag ay avocat am nee nañu Ousmane Sonko statut dafa soppar ñi ko ndax jamono ji maire la dafay soxlaa génn réew mi yéen kaay gi di esat xëy ci huitième de finale yi journal bi nee na Liverpool niki démb dem na Italie dóor ñaari bal ci dara ñi nga xam ne ñooy waa Inter de Milan Salzburgo ak Bayern niki démb dañoo témboo kenn ku nekk benn bal la dugal sa morom Europa League tey jii diggante Barça ak Napoli Kalidou Koulibaly match bu spécial la ci moom la ko waral mooy Barcelone jamono ji dañoo teg bët ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly yéene kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu combat bi nga xam ne moo war a dox diggante guy gi ak rëg-rëg guy gi nag ngir mu gañ rëg-rëg am na lenn loo xam ne guy gi waru ko sàggane war naa am mantal boo xam ne mental bu dëgër këcc lay doona way na guy gi war na am nag doole maanaam physique boo xam ne bu jéggi dayo lay doona ba pare nag war naa dal ba pare nag dóor yoo xam ne dóor yu sat sàpp lay lii bu ko guy gi amee mën naa daan rëg-rëg lii rek guy gi mënu cee génn journal bii de la sa xëy duñu xibaar naan ñu